leen wax ne nag ci turu communauté sénégalaise bi yu nekk fii yëpp ci Argentine te ñu gën leen a ràññee ci li nga xamante ne mooy association des résidents sénégalais yu nekk fii ci Argentine ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen indil nuyoo président Arfan nga xamante ne moom nekkul ci dëkk bi mais muy envoyé nuyoom di lu bés bi di rafetlu li nga xamante ne mooy jeetaay bi muy jeetaay bu am solo muy événement boo xamante ne ñun ñëpp a ko bokk Sénégal yëpp ko bokk muy murit bi muy tiijaan bi muy laayeen bi muy chrétien bi sax ak képp koo xam ne bokkoo ci li nga xamante mooy bépp diine yaakaar naa ne nekk nekk bokk ci li nga xamante ne mooy àdduna bi yaakaar naa ne boole na ci lii ndax Serigne Touba Serigne Touba mbooloo mi yëpp la. donc ñuy sant yàlla bu baax bi ñu yàlla mayee xewal ñu mën a nekk fii tey taxaw ak yéen am wër nekk ci jàmm mën na fekk lii nga xamante ne mooy magul seen Touba. ñuy remercier ñi nga xamante ne nag mooy daara murit ñi di remercier kuréel yi di remercier njiit yi yëpp nga xamante ne mooy ñoo fi nekk muy tiijaan yeeg Baay Faal yi ñëpp liñ fi def ñun ñu ngi koy rafetlu lii nga xamante ne moo fi nekk. dafa bokk ci loo xam ne dañ ñuy jàppale ci suñu intégration ci dëkk bi c'est-à-dire day permettre waa dëkk bi xam ñun ñan lañu lan la ñuy def ci lan la ñuy yëngu lan mooy suñu religion te ñëpp aussi xam ne suñu religion religion jàmm la religion bu solidaire la religion la boo xamante ne day faciliter intégration donc lii ñuy def lu am solo la lu am maanaa la ci biir dëkk bii ñu nekk ñu war a xam ne aussi dëkk bii nga xamante fi lañu nekk muy Argentine bu fekkee ne yàlla dafa def ba ñu ñëw ci magalu sëñ Touba dafa am luñ ci war a jànge ndax sëriñ Touba kat kenn ku nekk gis na ne wala au moins dégg na ne am na ay affaire yu yoo xamante ne dund na ko te terewut moom muy sant yàlla muy gërëm yàlla bay woo ay nit di leen naan kaay leen sant ma yàlla donc loolu war na tax ñun bu ñu nekkee fii ci Argentine ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi ñu war a mën a sant yàlla ci même bu ñu demee ba xam ne situation bi ñu nekk ay situation yu critique lañ donc Serigne Touba mu ñuy jàngal loolu te yàlla na ñu def ko suñu xel te xam ne dëkk bi lu mu méttee métti war nañoo dolli sant yàlla war nañoo jàng baal suñu moroom war nañoo jàng gën a solidaire suñu biir te xam ne amul kenn ku mën a sa bopp dara lépp lu ñuy def ci àdduna rek ci mbooloo bi lañ ko daqa def leneen li nga xamante ne aussi mooy li leen bëgg a yëgal rek mooy comme ni ngeen xamee ne fii kenn mënalul boppam dara noonu ngeen war a xamee ne wala noon lañ war a mën a xamee ne képp ku dem ba génn àdduna mën a doo tabab dara donc ba tax na comme année bii dafa yàlla dafa def mu nekk année bu xaw a ci ñun lu mat fukki nit daal di faatoo fii ci dëkk bi donc ñu ngi leen di ñaan lépp lu ci waay mën a def xamal ne sa bopp nga ko defee defal donc ñu jàpp ci te ngeen xam ne tey moment bii ñu nekk am na ñetti néew yoo xamante ne ñu ngi fi te seeni famille kat ñun kese la yaakaar pour seen néew yooyu mën a dem Sénégal donc ñu gën cee góorgóorlu jàpp ci bu baax a baax pour loolu ñu mën leen a transférer Sénégal ñu dem ci seen famille. ñuy profité ci occasion bi aussi di sant yàlla bu baax ndax yàlla moo ñu may dund dund boobu ñu may nag xañ na ko ñeneen ba tey mënuñoo taxaw fii di wax ak yéen. ñooñu nag faw ñu lim leen ndax kat dañoo bëgg aussi ngeen profité ci occasion bi ñaanal leen yàlla yërëm leen te xare leen àjjana mu ci at bi lu jóge ci maam aadama jaar ci ñoom Fallou Ndiaye ñoom Fallou Faye soxna Sakho soxna Sophie paabakar Sow ñoom Chérif Diagne ñoom Serigne Kebe ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana li nga xamante ne nag moo ci war ci moo ciy des te li nga xamante moom lañ mënal suñu moroom ci biir àdduna bi mooy jàppale leen gunge leen ba ñu egg seen bàmmeel donc loolu na ci ñëpp taxaw te xam ne ñun ñëpp ñoo leen ko mën a defal donc maa leen di gërëm di leen sant te di leen wax ne bu fekkee ne ñun continué nañ nii maanaam continué nañ di booloo di lépp ñu koy analyser suñu biir di waxtaan suñu biir di yéenante jam suñu biir lépp lu ñu song rek dinañ ko mën a daan ndax yàlla dinañ ñu ko may ndax yàlla lii la digale te yaakaar naa Serigne Touba aussi ak Serigne yëpp ñi nga xamante ñoo nekk Sénégal te yàlla moo ñu may chance boobu ñu am ko ci Sénégal loolu lañ digale yàlla ñu def ko mu nekk suñu objectif yàlla ñu def ko mu nekk suñu leçon yàlla ñu ci jàppale incha allah Serigne Touba bu muy jàngale Serigne tuubaa bu fekkee ne am na benn bibliothèque boo xamante ne daf koo def muy daara kaamir defu ko pour ay touristes ñëw di ko seet da koo def pour ñun ñu jàngi xam-xam bi nga xamante ne moom bind na ko ci biir te xam-xam boobu lépp a ngi ci biir muy technologie muy science muy éducation amul dara loo xamante ne des na donc ñun war nañoo jàpp Serigne Touba comme benn li nga xamante mooy doon suñu ji maanaam ñu jàppe ko comme maanaam benni exemplaire boo xam ne war nañoo roy ci kawam même bu fekkee ne duñ ko mën a jot sax ñu jéem a roy ci jëf ju baax ak jëf ju rafet bi nga xamante moom la doon def ñu leen di gërëm kenn ku nekk ci ak santam te leen ñaanal jërëjëf asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di remercier mbokku taalibe yi ci bis bu màgg bi nga xamante ni si ni moom la ñu célébrer muy bis bi nga xamante ni si ni Cheikhul Khadim dafa jóge woon Sénégal ñu di ko yóbbu Gabon mu dellusi si woo taalibe yi ngir ñu àndandoo santale ko sunu borom. Euh, ci kaw loolu nag ñu ñëw fii pour wax ci turu association bi euh, ci li nga xamante ne si ni mooy remplacer fi le président Arfan Diédhiou comme il est absent euh, di ñaan mbooloo mi pour ñu teewlu parce que waxtaan bi dañ ko bëgg a tënk ci ay poñ li ci njëkk mooy danoo bëgg a waxtaan ci li nga xam mooy situation sénégalais yi fii ci Argentine lu ci mel ni problème mu légalisation yi problème document yi ak problème mu kawsa judiciaire yi nga xam ne si sénégalais dañ koy faral di am fii ci dëkk bi buñ ci jàllee ñu wax ci situation passeport yi ak li nga xam mooy problème mu carte d'identité jógee ñu wax ci problème mu décès yaakaar ne Moustapha brosé na ko euh, bëgg nañ boole li nga xam ne mooy problème mu siège bi nga xam ne boobu ba ngeen association mi ngi koy joytu te yaakaar naa ne mu doon loo xam ne lu am solo la euh, bu nu fa paree ñu wax ci li nga xamante ne si mooy projet bi nga xamante ne si vraiment euh, le gouvernement du Sénégal jagleel na ko li nga xam ne si ni mooy émigré yi nekk à l'étranger muy ci wàllu habitat yi ak euh, wàllu fees bi buñ ci noppee ñu rappeler nit ñi ni année bi dafa doon année bu spéciale parce que chaque année le 25 décembre sénégalais yi dañuy am association bi dafay def euh, li nga xam ne si mooy assemblée générale ordinaire année bi nag dafa fekk mu tombeek renouvellement bureau bi donc vraiment ñu ci invité ñëpp euh, pour ñu bàyyi ko xel waaw ci li nga xam ne si nag moom situation légalisation yi coow li bari na trop ci dëkk bi rumeur yi bari na mais dañ leen di xamal ni rek lépp lu mu mën a doon il faut aller la recherche de l'information parce que àdduna nit mënoo toog sa kër rek di diingat wala ngay wax boo waxee ñu ne noo gars yi nee nan dañ ko war a maytu da ngay dem nga wuti information problème mu légalisation papier yi association bi moo ko ànd àndoon ak Cancilleria ànd koog li nga xam xamante mooy ambassade du Sénégal au niveau du Brésil ñu négocier woon ba le consul euh, de l' Argentine au niveau du Brésil di ñu légaliser le papier yi ci kaw loolu xam ngeen administration ni muy doxe Argentine ci boppam moom moo changé li nga xamante ne si mooy représentation diplomatique am au niveau du Brésil kooku bi mu ñëwee moo jël décision ni kayit yi nga xamante ne si dañ ko doon légaliser au niveau du Brésil mënatul a nekk parce que seen juridiction c' est au niveau de l' Afrique au niveau de leen leeral ni problème bi du problème mu moo bañ a kayit yi. mais c'est-à-dire juridiction argentine c'est-à-dire l'administration argentine ñoo jël décision xam le ni kayit yi kenn dootu ko légaliser fii na ngeen dem au niveau du Nigéria parce que foofu ngeen jokk teewul nag association bi toogul mi ngi def ay démarches am ngir vraiment nun ko gën a mën a yombalale mais tamit am na loo xam ne duñu ko mën a nangu il faut que ñu waxante dëgg ñun sénégalais yi parce que mënoo nangu association bi di def effort di laaj nit pour ñu légaliser les papiers les gens disent que c'est trop cher te ñuy dégg ñu ni day jënd tey huit mille francs huit mille pesos wala ñu jël dix mille di envoyé ay papier au niveau Nigéria yaakaar naa ne lu mu ci mën a doon danoo war a toog suñu biir ñu yombalal nit ñi liggéey bi ñu ànd suñu biir ñu waxtaan parce que jombul ni bu ñu dajee ñu waxtaan mën nanoo àndandoo trouver benn solution parce que dem gi Nigéria lu war a mën a nekk la mais am na yoon bu nu ko doon jaar dina gën a mën a facile ci ñëpp mooy lan bu association bi toogee ak ñi nga xam ne ñoo nécessité papier yi parce que dinaa leen yoon xel nanguwul ngay jël plus de cent dossiers di ko jaarale ci avion yi sans procuration sans autorisation taxaw ci kanam ambassade ni ko légaliser ma papier yi donc xel nanguwul loolu mais teewul xëy na bu ñu defoon ay démarches mën nanoo am aw yoon bu nu jaar pour ñu mën a defoon ñu loolu li ci des mooy problème judiciaire yi bari na ci dëkk bi sénégalais yi bari nañ fi ay problème suba rek incha allah war nanoo dem San Martin pour taxawu sénégalais yi borom xam yaa ngi ci dëkk bi jàng nañu kaar allah lenn rek moo xaw a manqué mooy volonté politique volonté politique su ma koy wax mooy lan nit ñi il faut que ñu jël seen temps libre di ko consacrer ci doomu aadama yi parce que mënuñoo nangu Sénégal nga di fa jàng am sa lijaasa sa papa fayalu la dërëm état bi di la ko fay dajale impôts yi ñu fayal la nga ñëw fii war a jël vraiment sa xam-xam pour delluwaat ko ci Sénégalais nga toog sa kër di critiquer bu nu waxee ngeen mbir mi doxul te yow nangu woo doxal dara nangu engagé wu donc association bi dafa manqué personnel. personnel su ma koy wax mooy des gens engagés ñoo xam ne pare nañu pour dugg ci association bi pour liggéey ngir communauté sénégalaise bi parce que ñaar ak ñett mënuñoo yor li nga xam ne si mooy liggéey association bi li nga xam ne mooy problème mu passeport yi xam nga ni cette année ci def nañ effort avec l'appui de l'ambassadrice indi fi ñaari commission ci lu toll ci six mois ñu defar fi ay passeport mais nu sommes plus de 4000 sénégalais à chaque fois passeport yi day réer chaque fois passeport day jeex il faut que nit ñi def tuuti effort mooy bu seen passeport réeree wala mu jeex ngeen jige association bi def déclaration su ko defee ñu mën a quantifier le nombre de passeport les nombre de gens qui ont besoin de passeport pour mën a discuter avec l'autorité pour ñu indi fi mission pour mu defar ñu passeport bi son excellence bi mu fi ñëwee ñun li ñu ko xamal mooy ñun sax mission yooyu noonu li ñu bëgg mooy centre de reproduction des passeports au niveau du Brésil parce que nombre bi fi nekk bari na te soxla nañu ko ndax jëlee nit Brésil indi ko Argentine mu defaral nit ñi passeport yaakaar naa ni moo gën a yomb di ko jëlee Sénégal di ko indi fii problème am carte yi nag vraiment euh, mbindu mi na problème de finance amoon na problème de moyen amoon na problème de temps am na mais il faut que nit ñi xam ni lépp mi ngi jóge ci autorité sénégalaise bi coobare bi di coobare association bi def nañ la tout mais temps bi ñu joxoon moo doyul donc on a incha allah rabi bala moo yàgg dina ñëw te bu ñëwee dinañ ko distribuer kenn ku ne jot sa quarante di ñaan mbokk ngi laay war sooli bu document yi ñëwee fii ci dëkk bi na kenn ku ne def effort nga dem jëli sa document parce que mënoo concevoir dagg sa yitte dem rang déposer ñu la kayit yi ñëw na nga wàcc ko fi pendant plus de 4 mois pendant plus d' an pendant plus de 4 ans yor nañ fi passeport ba passeport yi permis suñu loxo yaakaar naa loolu du yoon li nga xam ne mooy problème mu décès yi loolu moom il faut que ñu parce que mënuñoo concevoir plus de 4000 sénégalais nekk fii ci Argentine ñuy am problème de rapatriement des corps parce que moo tax ñu jël décision ci association bi ni 300 pesos yi nga xam ne si moom la laaj dafa tuuti donc bépp sénégalais 500 pesos lan lay laaj parce que actuellement on a trois corps deux yi daanaka seen papier léegi mu pare te yaakaar naa li fi nekk ci mbooloo war na nañoo jomm ñu toog ñu ni kat document yi pare na mais problème xaalis moo leen fi téye donc actuellement daal li ñuy soññ. ci mbooloo mi bu fekkente ni si kenn ku nekk mën nga ñëw dimbali ci ndimbalu sëñ góora nga làmb ci li nga sa poos xeebu ñu dara nga jël ko joxe ko ñu jël ko boole ko li fi nekk parce que incha allah bala moo yàgg dara am na ñaari koor yi fi nekk kooru Fallou Ndiaye ak kooru Serigne Kebe daanaka seen i document pare na ñu leen yóbbu Sénégal te ngeen xam ni am na koor bu fi nekk depuis mois de février te dañ ca war a fay xaalis bu bare bare parce que fan ko teg dañ ko war di fay moo ko téye moo tax boobu ba nekk koor bi mënuñ koo rapatrier donc yaakaar naa ni fii nii information yi ñoo ngi koy jàllale tey jii ku gis mbooloo mi ci màggal gi xam ne bari na nous sommes plus de quatre cent et quelques fii nii te cent personnes yu nekk yaakaar naa bu ñu defee un don dix un don dix mathématique la mooy quatre cent personnes yi bu kenn ku nekk génnee jàllale information dix personnes ça fera plus de quarante mille yaakaar naa ne matuñu fi loolu yaakaar naa matuñu fi loolu matuñu fi plus de cinq mille donc il faut que information yi di jàll ñu bañ a def rétention de l'information parce que canaux yi ñu am mooy whatsapp yi mooy Touba TV euh, Big Deal la ak li nga xam mooy Tivaouane TV foofu la ñuy jàllale information yi donc il faut que nit ñi jàpp ci liggéey bi xam ni métti na li nga xam ne si nag moom laa bëgg a mooy problème mu bi nit ñaa ngi kaas na association bi jigéewul nit ñi association bi deful liggéeyam mais bala ngaa kaas say droit dangay xam say obligation association bi ñi ci nekk ay volontariat lañu seen temps libre la ñuy jël di bàyyi seen liggéey guddi di bàyyi seen liggéey bëccëg duñu tëdd duñu nelaw di nekk ci problème mu sénégalais yaakaar naa ne li ñuy def nit ñi di ko gis li ñuy def te nit ñi gisuñu ko moo ko ëpp doole. donc bala ngeen xam njariñu association bi mbete bu ngeen fi amee ambassade wala ngeen am fi consulat parce que association bi dina leen mënal loo xam ne moog daayira yi consulat du leen ko mënal ambassade du leen ko mënal pour fir firndeel loolu amul benn réew bu am ambassade am consulat te amul association. parce que ñun ñoo jigéen nit ñi ñooy dox social ñooy xam soxla nit ñi am na loo xam ne si le consul. il limité par des directives am na loo xam ne xay na du ci mën a accéder donc pour loolu li may ñaan sénégalais yi lancé woon nañ fi appel 300 pesos la ñu laajoon kenn ku nekk pour problème siège bi yaakaar naa ne dina yombal liggéey bi parce que tey jii nii mënuñoo taxaw en 2018 association bi taxaw nit di am problème xamoo foo koy jooytoo xamoo fooy dem mais tey ji bu nu amoon sunub siège képp koo xam ne si am nga document wala nga am information booy laaj ci wala tubaab bi da ngay ci siège bi nga laajte ko. cette année ci incha allah rabi yaakaar naa ni 300 la ñu laaj mais bu ñu demee assemblée générale yaakaar naa dinañ ci gën a waxtaan te dinañ koy yokk te nous sommes prêts pour ànd ak li nga xam ne si mooy li nga xam mooy média yi nga xam moom lañ fi am pour def des débats télévisés pour gën a conscientiser les gens pour gën a waxtaan ci nit ñi ci li nga xam ne ci mooy njëriñu association bi. pour wax ci problème AG bi cette année ci assemblée générale ordinaire lañ am bureau bi fi nekk ren lay am deux ans association bi dafa am ay textes am règlement intérieur. du question rek liggéey bi Arfan di def ak équipe am neexuma damay toog fay nii dama leen fiy jëlee nit ki bu nga ba fekkente ni si da ngaa bëgg a bokk ci mbir danga koy jige am ci xam-xam am ci notion am ci information loolu mooy tax bu ñu la ko joxee du doon euh, recommencement parce que mënuñoo sos mbir mi pendant plus de dix ans di ci xëy di ci wàcc di ci guddi di ci bëccëg ba mu toll fii ñuy jël di ko bàyyi muy nasax parce que nous sommes des responsables danoo bëgg transition ren incha allahu rabi bu nu gisee ñoo xam mën na leen a jébal leen nga ñu ko donc li ñuy ñaan mooy règlement intérieur association bi wala statut yi ku ko bëgg xam lép lu waaye bëgg a xam ci association bi nga jig association bi parce que constitution mooy loi bi gën a rëy ci réew te dañ koy jël sax di ko exposé ci voie publique yi nit ñi di ko gëstu di ko xam donc loolu laa ne woon dinaa ko wax li nga xam ne mooy projet d'habitat yi moodu moodu bu nekk li nga bëgg mooy kër goo dëkk bokk na ci sa mbébét bu njëkk ci kaw loolu état du Sénégal aménagé na ay hectares fee nga xamante ne si vraiment mooy zone u Lac képp koo xamante ni si nii yàlla dogal na nga bëgg terrain mën nga constituer say groupe foo constituer say groupe ngeen def seen monter seen dossier su ko defee incha allahu rabi ñu jëm leen cay taxawu bu leen ci taxawoo ngeen déposé kenn neewu leen nag bu ngeen ko defee di ngeen am mais tamit dafa doon opportunité boo xam ne si bu amee ñëpp dañ ko war a saisir li nga xam ne mooy suñu bokku jigéen ñi am na financement boo xam ne si moo fi am muy fees képp koo xam ne si vraiment monté nga sa projet ñu jàppale la ci nga yóbbu ko niveau de l'ambassade ñu appuyer la ci donc di tuub nag di jéggalu ci kaddu yi di wàcce foofu suñu kaddu di remercier vraiment mbooloo mi di bokk ak yéen vraiment li nga xam ne si mooy màggal gi